abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ahalaan bikum waa Pastef yi patriote yi fa ñoo fas yéene samp seen mbër ci jongante njiiti réew mi 2024 te mooy usmaan Sonko ki suba ci samedi ji ca stade du bari fa lañ fas yéene dajale mbooloo mu bari ngir xamal li ni mel waaye gouverneur bu Ndakaaru fa lànk fa leen koo tere si du quotidien moo ñi ko xamal terewut bànqaas ba yor wàllu yoon ca Pastef ñoom fa ñoo dëggal candidature Ousmane Sonko samp ko l'observateur ne gouverneur bu Ndakaaru waaye waa Pastef yi ne du ngeen fi sampee Ousmane Sonko terewul patriote Pastef fañ ko tontu tontu bu saf sàpp moom gouverneur yow fa ngay xool fañ ko wax na ko xamul kenn ku mën a tere ba ñun waa Pastef yi du ñu investir suñu mbër muy Ousmane Sonko te jeex a gudde ba tey Ousmane Sonko moomu xamul kenn ku ko mën a tere bokk ci wata 2024 yi muy leer tribune yéene kaay ne investir Ousmane Sonko bii njiitiram Macky Sall moo ko tere de a ah, yow fa ngay dégg gouverneur ba la mu wax li tax mu tere ko nee na parce que Ousmane Sonko fa fee wax a tàbbil réew mi ci 24 ci képp koo xam ne fa ko bëgg a tere mu bokk ci wote 2024 yi wote du fi xamee wala bokk suy xam fay fekk réew mi tàbbi ci guuta gouverneur nag nee na wax jooju fa garaaw bés bi yéen kaay na gouverneur kay nee na fay ragal fit na jógaat ci seen ndaje moomu ñu bëgg a wote moo tax mu tere leen ko ci stade Amadou Bari waa Pastef nag fañ ko wax na ko far force fra force doole mbaam fa ñuy xamal suñu investiture bi ci Amadou Bari le a fay def fonk anniversaire am bi waaye fi mu toll fañ koo nar a saboté de réew mi yéen a kaay na gouverneur bi kay fa taxaw ca kanam Ousmane Sonko na ko xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa doo fi jaar sa waa parti bi ngir dem stade Amadou Barry faa leen ko tere bés bi yéen kaay na takk der yi nag fi mu nii fa ñoo geetaru de ngir ñàkkante képp ku bëgg a dem stade Amadou Barry ñu jëflante ko ak yow lépp ndax mitinu Pastef bi bañ a xam te mooy kaay na xanaa fañ koy fekkee wala a kaay na ko hée patriote a ñàkkante gars yi de laas bi seen rek ñoom patriotes yi gat sa gat sa noonu la def ak ñoom ak seen waa ndax fi mu fañ leen tere mbooleem ab yëngatu ca biir ndakaaru yor yor yéen kaay ne terewut nag patriote Sénégal yépp ba bitim réew fa wote d'accord ne tànn nañ Sonko mooy seen candidat 2024 ah, yaw fa ngay xool junne ak juróom benn téeméeru délégué yi nekk ci 46 département yu yi ak ñi leen nekkal diaspora bi bitim réew ñoom ñëpp joxe seen kàddu ne moom ngir ñàkkante ko gaañe ngir bañ fit na nag moo tax fa koo tere leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne tey ci àjjuma ji ci la njiitiram Macky Sall di wax kan la tànn mu fas yéene nekk mbaru benn bokk yaakaar ci wata 2024 yi Amadou Ba nag mel ne moom fa mu jàpp wóor na de fay ragal ñu tànn ko de critique yéene kaay ne leen hëy faa bëgg ngeen tëj seen gémmiñ ñi te déglu njiitiram Macky sàll mooy wax kan mooy candidat benn bokk yaakaar tey koy wax le point actu ne kan la nar tànn nag fa koo nëbb fi mu toll nii kenn xamut ko source ay yéene man daal faa seetlu ne njiitiram Macky Sall candidat benn bokk yaakaar bi mu nar a wax tey jii te loi yañ war a yóbbu assemblée nationale wote ko ngir Khalifa Sall Karim Wade bokk yóbbooguñu ko loolu fa mel ni ay risque la de yow fa ngay xool su fekkee njiit réew Macky Sall fa tànn koo xam ne député yu bëri ci APR d'accorduñ ci waa léegi bu ñu yóbboo loi ba ñu war a wote ngir Khalifa Sall ak Karim Wade bokk foogu le ne mën nañ koo ñàkk a wote ndax mere Macky su boobaa Khalifa ak Karim fa ñuy fari new xay fa leen de <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Adji Sarr fa porte plainte Pierre Goudiaby Atepa ATEPA ne fa kaa waxal lu xamut yàq de rek diffamation daal ba pare na ma ngay sàkku ci ATEPA ndàmpee ko juróom fukki million ay waay ndaw sàmba les si ko yéen kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom indépendant yéen kaay mooy Xalifa Sàll fa wax mboolem lu ko naqari <laughs> yaw seetal nee na moom kenn tëjut ko kaso ci kaw ne fa détourné xalalu askan wi nee na moom fond politique la yore woon di ca def loo xam ne yàgg nañ ko faa def ca mairie ba te nee na bi ko tegee loxo moom fa tànn dem kaso lépp ngir sàmm bi diggante mook Sonko tamit saa bu ñu waree waxtaan ne lay def la mu def moom état bu Sénégal mooy fexe ba entreprise yu ndaw yi mën a jot ci financement guichet unique ba fañ koo lancé le soleil yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom libération mooy gaal ga nga xam ne fa suux ca waaxi ndar ya xam na ñaari doomu aadama yu ñu gisaat seen niw ya léegi kon juróom-ñett la fa yokk takk der yi tamit fa ñoo jàpp beneen gaal goo xam ne fa naroon a demaat ka fa demoon démb nag ca diwaan ndar muy Antoine Diome jëwriñ gi fa ñoo amut liggéey ak xamuñ xaalis ak yooyu loolu du dëgg ndax ñoom bu ñu dem fa ñuy fay xaalis laneen lu mu weddiwaat moom Antoine Diome mooy ñetti téeméeru ndaw yi ñu wax na fa ñoo réer ci géej gi nee na du dëgg ma ko waxee ca turbine yéen e kaay yéen bi na ko juróom fukki rescapé daal xam na ca gaal ga léeg si ko yéen e kaay na ña nga xam ne fa ñoo rëcc mucc ca gaal ga ña ngay nettali yëfee nam demee info yéen e kaay moom fa xëy di laajte ne waa ana Amadou Ba njiitu jëwriñ yi nga xam ne moom lañ dénk ministre du sport yow fa ngay xool dalwaay ministre sport bureau ya fa vidd kenn newu fa ay àla traité ñoo nekk ca poste ya ba tax yéen kaay bi mel ni ku jaaxle ca la fa xam la xam ca tirage coupe du monde 2026 fii ci Afrique ni ki démb stade yéen kaay ne gayndey Sénégal yi xam nga ñan lañ bokk ak poule RDC Congo Togo Mauritanie Soudan ak Soudan du Sud yéen kaay bi ne hée donte Sénégal mooy favori war naa mën a génn ci poule bi waaye Mauritanie gii suñ digganteeg moom dér lay doon dafay saf sàpp réewum Togo tamit yéen a ngi fàttali ko xatam moo